na seen pétition bi nga xamante ni lancé nañ ko ak marche bi ñuy amal euh, ci 23 mai bi leen ngir xeex lépp lu soxal daganal euh, góor jigéen file ci Sénégal kon Adama Mboup euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maaleykum ba ñu ngi lay fay di nuyu waa auditeurs Rewmi FM yëpp. Mhm. ak kilifa yi ak mboolem équipe bi. sàllaa di commencé ci bismillahi rahmaani rahim naan yàlla daanaka alhamdulilah rabbil alamin ginnaaw bi ñu sante yàlla. voilà euh, ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité kon tey jii sax dinañ la euh, laaj benn question anodine mooy euh, collectif ànd sàmm jikko yi naka la juddoo exactement. waaw collectif ànd sàmm jikko yi dafa nekkoon d'abord 1995 dafa bëri collectif yoo xam ne ay association yoo xam ne ñu ngi doon œuvrer ci défense moral valeurs morales. Mm-hmm. depuis presque une quinzaine donc bokk na ci comité de défense des valeurs morales nga xam ni yéen a ngi koy ay problème mu DS major ak ndey géey yooyu yëpp impliqué woon nañ ci. Mhm. waaye am tamit ñu mel ni ANCA bi bu sëñ Babacar boobu nga xam vraiment moo daan lecteur du Sénégal di sensibiliser ci suñuy valeur par rapport ak valeur européenne yi ñu imposé. Mhm. donc ak ñu mel ni Ligue des imams. fédération nationale des associations coraniques waaye tamit euh, am na société de la vie civile ñu mel ni ay euh, i SOS euh, consommateur bu met ma soxna kan mm-hmm. ñoo ay cofondateur lañu ak mm-hmm. même ay rappeur ah. mm-hmm. ay Abdou Karim Gueye Siraye ñitu ñoom ñitu Gueye ñitu dëgg Abdou ah, Karim Gueye xum xaax ñoom ñëpp yeneen professeur comme Cheikh Oumar Diagne Oustaz Matar Sarr ñoo ñëpp daal dañoo bokk ci a Jamra sax membre la ci collectif ànd sàmm jikko mhm. donc on a plus de de plus de cinquante associations yu ci nekk on est dans tous les quarante cinq départements waaye nag ni ñu sosoo mhm. mooy yàgg nañu œuvre ku nekk de son côté mhm. nag ñoo ñëpp dégg seen ay action depuis dix ans quinze ans waaye nag de deux mille quinze ci euh, mbirum euh, homosexuel yi ñu doon takk ca yi doon sëy ca kaw la waaw ah, boobu nag la ñu nag euh, xam ni ba pare temps yooyu ñu gis ni affaire laisser aller dafa commencé am parce que teguñu ci tuuti avant gisoon nañu biennale des homosexuels amoon fii ci ci Sénégal nga xam ni quartier Sénégal quartier Dakar ak Sénégal yëpp. Mhm. ñu fay def ay exposition ci thème homosexuel ba ñu xeex ko ba ñu arrêté biennale bi 2014 ñu ñëwaat 2015 homosexuels yi di marié mbaaw. ba pare ki nga xam ni moo doon seen avocat en 2008 mooy homosexuel yi doon marié mbaaw mm-hmm. ki nekkoon seen avocat moo doon Sidiki Kaba waaw moo doon défendre ni dañu leen war a bàyyi Sénégal war na wees fu muy tere góor jigéen ak yooyu kooku tey bu demee beneen ministre la justice ñu am ay homosexuel yuy marié wu kaw la ci guddi gàmmu guddi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu jàpp leen ñu gis ni daal ñu ngi commencé di bëgg a noyal ci leen may daal pour lu leen neex Mm-hmm. ci la ñu ne nag kon dañu créer collectif non à l'homosexualité mm-hmm. collectif non à l'homosexualité boobu moo njëkk mooy ndeyu ànd sàmm jikko yi dëgg la collectif boobu dajee woon à l'époque plus de dix huit associations def ci marche boo xam ni marche bu xawoon a violente la ba man ni sax arrêté woon nañ ma ci mais quand bi li mu permettre mooy euh, ñu nekk sax état bi ba ngeen defee marche ba ba monde bi yëpp gis ko relayer ko médias yi pression yu bëri yi ñu doon teg ci état bi ndax Macky Sall ba mu faloo rek euh, lobby yi dañ ko ko ñaar loxoom ni ko nag léegi da war a dag daganal ngóor jigéen di ko mais ba ñu noon ci lañ gis yi ba ñu demee ba collectif euh, non à l'homosexualité mhm. booru ay deux mille dix huit ñu ni dañuy organiser fin deux mille dix sept début deux mille dix dañuy organiser ndaje euh, franc-maçon yi fii ci Sénégal mhm. def ko genre capital de la franc-maçonnerie pour les jeunes mooy REFRAM ñu ni woon dañ koy organiser dans un grand hôtel de la place mhm. et que ça à à publié ko nag ouvertement ñu ni léegi amatul na bi dañ koy wax ouvertement dañuy recruter ouvertement ba pare daje boobu nañ ci recruter six cent jeunes ci la ñu yëg nag affaire bi doole waat suñu doole toutes les associations ñuy daje boobu du fi am ñu pare nañu buñ xanaa dañuy dañuy dañuy jaar suñu bakkan ba pare soog ko amal ci la xam ni nag borom hôtel bi xam ni foowuñu cinquante millions ñu mu delloo leen ko ni leen man taluma sama hôtel ñu koy ñu koy soppali fii ay ay ay ay ay ay ay dóom mhm. donc ci la ñu annulé ndaje boobu ba ñu ko mujj defee Congo donc ba loolu yëpp weesoo donc ñu ngi ci euh, toujours collectif euh, euh, ànd sàmm jikko nag li ko jur Mm-hmm. donc collectif national l'homosexualité et la franc-maçonnerie moo mooy ndeyu ànd sàmm jikko bi organiser pétition bi ak euh, mouvement yi ànd sàmm jikko yi nag après ñu gis ni amoon na même des sites porno made in Sénégal mm-hmm. nga xam dañuy jël léegi avant xam nga porno avant ay tubaab ngay gis ni koy joué dëgg la wala ñu ñuul ñoo xam ni doo xam ban xeet lañu waaye nag ñu bëgg a lancer nag des des produits porno made in Sénégal. Mhm. def ay site donc ñun ci lañ jóg créer collectif ànd sàmm jikko yi pour xeex site yooyu ba ñu de ko xeexee ci lañ gis ni ñu ngi localisé wu ba Canada nekkuñu sax Sénégal mais nag am na ñu leen daan filmer bu leen yónnee ci dépression beeg suñu plainte yeeg yooyu. ci la ñu gis ni am na ñoo xam ne sax ñu doon université fii daan leen collecté la image yëpp ni ñu dañ leen mujj arrêté. arrêté nañ ba yóbbu leen ci bi donc y' a plein plein de choses donc boobu ba léegi nag ñu continue xam nga bañ fi tëbee ni dañ fi indi Rihanna. Mhm. pour mu doon modèle pour euh, ambassadeur su éducation xale yi fii Sénégal. Mhm. ah boobu tamit ñu jógaat ni leen ñun ah, on a d'autres modèles on a de model comme Cheikh Anta Diop bu ñu ne woon ay professeur Souleymane Bachir ak yeneen référence yoo xam ni waaye Rihanna nga xam ne nudiste la moom booy photo booy waay sax day futteeku ba ni dëng naan ñu naan les éventes moo naa ko jàpp ay Illuminati ñu naan la reine des Illuminati kooku tey jii bu ñu moom lañ bëgg a dénk suñu éducation la ça veut dire ñu bëgg a jëmale suñu doom yi baaxul mm-hmm. ci la ñu teel a protester contre la venue de Rihanna fii ba moom sax ba mu mujjee nangu sax ñëw ba ci yàgg ñu bañ insister élèves yi de manière anonyme bëggul sax ñu xam ban avion la dugg bëggul ñu xam ban hôtel la ne. Mhm. te ba mu ñëwee bañ ko naan Emmanuel Macron que président Macky Sall ba traité seen ndaw it dafa ni moom daal xelam dalu day ñibbi donc parce que vraiment y a eu euh, un rejet yi. a plein mel noonu ba ci gis nga sabaru Pape Diouf yi à l' époque. Mhm. nga xam ni moom it indi ay ci yow jàbba sooraak ñoo xam ni. dañuy nekk internet ba di wane seen yu bon suba ba ngoon di sol ay fili ba lu ne ñu koy def ñooñu tey jii ba ñu bëgg leen fay def ay héros accueillir leen en grande bopp bëgg leen fa defal événement bu rëy tamit en tam di koy monter événement bu bañ mujj année donc y a plein plein de d'actions yoo xam ne nag mais fi mu nekk rek ñu gis ni priorité bi moom menace yi gën a mag mu ngi jëm ci euh, homosexualité parce que fi mu ne wañaar nañu loxo. Hmm. monde bi pays yu bëree bëri. ba ñu ngi koy légaliser. après sax dina dinañ ñëw si loolu mais mais lan moo tax euh, peut-être ay valeur ngeen di xeex mais lan moo tax seen xeex gën a fës ci affaire euh, franc-maçonnerie ak wàllum homosexualité lan moo tax mu fës côté boobu. waaw li tax mu gën a fës foofu mooy ñoom seen philosophie de base. nga xam benn franc-maçon bu ma doon waxtaanal di ko laaj ci mbirum franc-maçon moom français la mhm. ma koy laaj mu ni ma daal mu may expliquer ba jaag mu ni ma euh, li ma la mën a xamal mu ni ma jullit bu baax mënta doon franc-maçon te moom ancien franc-maçon la woon français la mhm. ma ne ko waaw lu tax mu ni ma parce que il faut supporter il faut soutenir toutes les formes de liberté même la liberté d'être homosexuel mu ni boo nekkee franc lépp luy liberté da nga ko war ba kee ku ne damaa bëgg ne góor jigéen sax da nga ko see war a dooleel jàppale ko mm-hmm. mu ne ma est jullit bu baax mën na nangu lool ma ne ko déedéet mu ne ma moo tax man la jullit bu baax mën ta doon franc-maçon mm-hmm. donc nag tey jii ñoom dafa am idéologie boo xam ni seen soubassement idéologie ci boppam moo safaanoo moo contraire ak sunu suñuy valeur xam nga euh, boo gisee la fin de l'ordre moral et de de toutes les références religieuses sur terre mm-hmm. daanaka mooy seen objectif final ndax ñoom yow ni ngay def pacte ak suñu borom di ko jéem a jaamu ñoom ci la ñuy defee pacte ak Lucifer mooy Iblis lépp loo xam ni suñu borom a ko santaane ñoom ñu ngi promouvoir de safaan bi moo tax gis nga média yi tey ji mënatoo koo xool te gisoo fa loo xam ni naqari na yàlla te ñoom promotion boobu la ñuy def te loolu tamit bu sottee culture ak euh, propagande yooyu boo ko bàyyee muy law dina mujj suñu doom yëpp yàqu complètement parce que gis nañ ñoom seen doom yi tey fa ñu yegg ci yàqute nga xam ni valeur ba baag diineeg yëpp dañ ko sànni teg fee gis nga France ñu ko daan tudde la fille aînée de l'église ñëpp gëm yàlla gëm seen diine chrétienne ak yooyu waaye ba ñu dee seen propagande ca média ya def seen i seen programme yooyu ñu bàyyi leen ci tey jii dix français yoo gis set yëpp dañ la naan man gëwuma dara gëmatuma dara waaw trois ñoo la naan naa ci yàlla te trois yooyu nee nañu kenn sax moo ci pratique donc ñoom bu ñu ñun bu ñu jógul foofu tamit lañ joomee sunu sunu ndaw yi. Mhm. programme yooyu buñ ci teelu la jóg. daa waa France dañ leen bàyyi rek toog di leen seetaan. seetaan boobu it bu ñu ko defee fa lañ jëmee sunu sunu société bi fa lañ jëm ak sunu ndaw yi. mais mais mais yéen euh, Adama lan moo tax ngeen ne euh, franc-maçonnerie baaxul est-ce que du préjugé est-ce que xam ngeen lu nekk ci biir ba tax ngeen ne baaxul parce que souvent dañuy dégg euh, franc-maçon yi di wax ni ñu bari dañ leen di juger te xamuñ ñoom la ñuy dund lan la exactement est-ce que yéen gëstu ngeen carrément xam luy franc-maçonnerie avant ngeen koy xeex. lu ñu lu ñu xamul duñu ko duñ ko xeex mm-hmm. te lépp loo xam ni tamit gëstu nañu gis ni lu baax la ak fu mu mën ci jógee dañ koy dañ koy jàppale mm-hmm. parce que bi ñun dañoo bëgg suñu développement réew dañoo bëgg it suñu njëriñu askan waaye loo xam ne ñoom ci seen bopp déggoo fi ma tàmbalee mm-hmm. ni naa la ay franc ci boppam la ñuy waxal ñu ñuy wax seen principe principe bi par exemple boo demee tey ji euh, ba ñuy euh, ñoom euh, def seen jubilé ci France. Mm-hmm. y di feete yenn mouvement yi nga xam ne ñu ngi ko jiite. mais li ñu doon wax mooy jubilé mooy fexe nañu ba euh, remplacer li nga xam ni mooy euh, euh, jupon ak jupe maanaam sër ak ak ak ak ay jupe maanaam yu sexy. Mm-hmm. fexe nañu ba tasaare li nga xam ni mooy. li nga liberté liberté nag ñoom ni ñu ko gisee c'est sur toute l'étendue maanaam it amul dara dara dara loo xam war nga ko ko mën a tere ci wàllu liberté maanaam ni nga ko sentir da ko da ko ci war a jàppale sur toutes les sur toutes formes alors que ñun su suñu diine waxul loolu ñun sa liberté dafa am fu mu yem da nga koy calculer par rapport ak li nga xam ni moom la yàlla bëgg nga nga def ko mais fi mu la yem loo aussi nga war faa yem ñoom nag c'est le contraire ñoom moom dañuy promouvoir tout toutes les formes la liberté liberté yooyu nag wax naa ko xaar mhm. liberté yooyu da cee bokk ay liberté d'être homosexuel liberté lu nekk lu nekk ñu ci bi da daanaka ñoom seen idéologie dëgg fa ñu bëgg mu yegg sax am na ñoo xam ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi ba léegi tey boo demee ñoom chaglan ak ay euh, ñu bëree bëri ñoo xam ni tey ci lobby yooyu lañ bokk mhm. formé nañ mouvement boo xam ni nee nañu liberté yi dafa war a gën a xóot même le sëy ak bàyyi ma nga xam ni léegi déli lañ ko def muy la mhm. zoophilie mhm. ñoom nee nañ yooyu yëpp de c'est contre la liberté de de de de l'être humain nee nañu même inceste nga xam ñaar ñu bokk ndey ak bàyyi mhm. bu ñu amee envie yooyu yëpp ñu condamné ko ni warul am nee nañu loi yooyu yëpp c'est liberticide maanaam dafa dëppoowul ak liberté doomi aadama doomi aadama moom yooyu day day day day freiner liberté am nit ki li mu sentir dañ ko war a bàyyi mu def ko alors que loolu est ce que ñun dëppoo ak suñu valeur dafa yoo xam ni dafa safaanoo complètement ak suñu valeur moo waral comme ñu ma la ko waxee ñu defoon seen biennale fii euh, tasaare ko partout ci Sénégal dans toutes les galeries koñ boo dem ñu fexe ubbi fa galerie ah di wane ay mariage homosexuel ay transgenre ñi nga xam ni tey ji ñoom ñu nañu ba ci ba ci sexualité ay naan kii góor la wala kii jigéen la ne nañu c'est dans la tet yaa ko def sa bopp bi waaye nit moom ba ni nga juddoo nii ça veut c'est-à-dire yow ne tëb rek juddu doon góor loolu cest à war a xaar ba màgg boo demee ba màgg nga libre ni man góor laa wala jigéen laa waaye du loo xam ni dañ naan euh, clinique juddu na rek ñu ni ñu góor la xam nga ñoo xam ni ils pensent comme ça ba tax tey jii gis nga ni homosexualité développé seen dëkk ba nga xam ni tey bu ñuy wax sax ñoom dootuñu wax waxi euh, dinañ dem ba nga xam ni monsieur ak sax léegi dañ koy éviter. dañ koy éviter. waaw dañuy dañ koy éviter parce que dinañ wóor la ndax ci madame la wala monsieur la comprendre nga. Hmm. léegi tey ji wàllu euh, sexe comme ni ñuy wax sexe ñoom dañ daan bind dañuy bind genre dañ parce que sexe pam wala homme la alors que nit ki mën na nekk autre alors que boo bindee genre nit ki mën na bind a mooy autre wala n mooy neutre. Hmm. dégg nga wane ni man duma góor duma jigéen man beneen laa. kon mooy mbirum genre boobu ñuy dégg. Mhm. voilà nee nañu loolu mooy liberté liberté da nga war a may nit ki pour nga bañ koo tënk ci ci sexe rek waaye da war a yaatal mooy genre boobu par exemple tey xam nga avant da nga daan dégg ñu naan violence nañu xeex pour la violence faite aux femmes. xam nga da ko daan gis. Mhm. loolu lañ daan xeex pendant des années loolu diine benn diine ànd ci ñun ñi ànduñu ci di métti la jigéen ñëpp dañ ci ànd indi imaam yi sax dañ ci àndoon di leen jàppale. Mhm. ak ñëpp parce que violence faite aux femmes waaye ñu tëb ba ci ak ñu ni léegi. basé sur le genre basé sur le genre. basé sur le genre nag. dafa gën a yaatu ba Jolaaf fetoo fan. Mhm. saa yee rek gis nga benn benn manifestation boo xam ni. Mhm. dañu bind ci seen pancarte yi non à la violence faite aux femmes. bind ci suuf non à la violence basée sur le genre. sur le fii dañ lay jëmloo ni ñaar benn la. mais ñoom boo gisee seen pancarte yi ñuy bind ñaar yi ça du benn. Mhm. violence basée sur le genre dafa dugalaale tamit góor jigéen tey boo signé benn ñu ñëw ne la ah àndal ah jàppale ñu ci loi bi ñu ne la nga ne loi bi lan la nga ne ce la là viola basé sur le boo ko signé yaa ngi boo wëggatikoo fekk góor jigéen ñu koy mettital da war a da war a xeex parce que yow. Mm-hmm. viola basé sur le genre dafa dugal dafa protéger waale góor jigéen. dafa mm-hmm. protéger jigéen. di protéger góor jigéen ak a ñu mel noonu. donc moo tax toujours nañu def attention ci terme yi ak lañ ñuy signé lañ ñuy signéloo ak lañuy ñuy wax. parce que dañ lay wax dara nga ne ah loolu de c'est noble. Mm-hmm. man dama cee war a xeex dama cee war a jàpp te su après yow boo wootee góor ni da ngay sonnal góor jigéen dañ la yow yaa fi signé woon yaa fi jàppale woon viol kii loi bi violence basée sur le genre. Mm-hmm. nga ne ah ñu ni la mais donc amoo droit nekk ci sa góor jigéen. cest ñu ngi yaatal ba wër euh, seen mbon boobu am doole. tey jii da ngay gis euh, des lois def partout États-Unis ak France. des lois contre l'homophobie yóbbu ko assemblée nationale nga xam ni tey jii yow sa émission bii nga def sax ñuy wax ci wàllu ngóor jigéen mm-hmm. bu doon France dañ la naan ci amoo pour interviewer ko mm-hmm. dégg te malheureusement fii ci Sénégal commencé nañu adopté maanaam bi wañaa seen loxo mm-hmm. boo demee au niveau des Nations Unies teg nañu léegi programme boo xam ni depuis deux mille six ku mel ki ñuy wax Rama Yade moo doon ministre ministre français boobu dañ ko jox programme français yi ñoo promouvoir programme bi yóbbu ko Nations Unies ñu liberté góor jigéen yi ak euh, kenn amatul droit di leen wax dara wala di leen ŋàññi dañ ko yemalee ci France waaye dañuy fexe ba Nations Unies supporté ko mooy IDAO dossier boobu ñuy wax tudde IDAO ci lañ ko yóbbu Nations Unies Nations Unies jàppale leen ni bis ni tey dinañ fexe ba wañaar loxo bépp état bu ne ci monde bi pour waxuma la danga nga jàppale mbirum góor jigéen waaye dootoo ñu nga def ay loi ba kenn du leen du leen boddi wala mu leen yi metti tam donc bañ ko defee ñu dem ba deux mille treize ñu ni léegi dañuy créer EPU EPU mooy évaluation périodique universelle ñun suñu dëkk yi ak ñu ne dañuy daje Nations Unies ñu koy évaluer ci fan nga toll ci mbirum góor jigéen ci avancé ci di leen may seen liberté bu ko defee tamit nga ci nga gis pression yooyu commencé ndax dañ ciy tegit di la chantage donc moo gis moo tax à partir de 2016 nga commencé gis ñun suñu constitution ñu commencé di ko changé di dugal ay nouveaux droits les droits d'autrui yooyu yëpp ñu koy voté ñu tebaat ba ci ak nga gis 2018 ñu créé ay ministère du genre ba ministère de la femme de la famille de l'enfant loolu kay doy ma la femme a ngi ci biir bu doon genre mooy femme du ñu répété genre waaye bu ñu nee et du genre c'est parce que am na ñeneen ñu bëgg ñu dugg ñoo xam ni bokkul bokkul ak kii mbir mi mbirum permis yi suñu permis yi sax ñu mujj fa ñu bindoon sexe ñu baare ko bind genre parce que tamit ka ka dul euh, femme du homme war naa mën a am place bu mu bind maanaam mu mën a bind a mooy autre wala n neutre comme ni ñu ko tamit xeex nañ ko ba dindi nañ ko sax ba indiwaat sexe ci permis yi donc alhamdulilah côté boobu ñu ngi ci waaye tamit suñ moo moo baax parce que tamit ñoom ëpp yi boobu ñu def Nations Unies dafa am équivalent fii ci Sénégal état mooy SNEC SL2EQ e nekk boobu moo chargé ci avancé yooyu nga xam ni ñoom at bu ne ñoom la ñuy interroger ni leen foo leen toll ci mbirum góor jigéen gis nga ba ci article dix huit du nouveau de la presse bi ngeen mujj signé mm-hmm. article dix huit boobu nouveau code de la presse bi article dix bi lu ñu wax mm-hmm. mooy kenn amatul droit ci presse bi moo xam da nga koy dessiner wala da nga koy bind presse euh, presse écrite bi mm-hmm. moo xam da nga koy def ci son wala da nga koy fësal ngay wax loo xam ne day boot bi borom ñaari tur yi mm-hmm. mënatoo maanaam mbirum orientation sexuelle mm-hmm. amatoo droit bi ci wax mm-hmm. loolu la article dix code de la presse bi validé te président Macky Sall promulgué ko donc euh, loolu kon te jii c'est anticonstitutionnel ba ñu seete benn constitutionnaliste dafa ni parce que ñun suñu constitution xamul orientation sexuelle texte la xam donc boo bëggee def benn loi boo xam c'est basé sur l'orientation inter euh, l'orientation sexuelle mhm. kooku c'est anticonstitutionnel maanaam tey ku ko kenn mënul kenn mënalu la dara waaye kooku benn patron de presse bu mag moo ñu woo moo ñu woo ni ñu may yéen xanaa yëgu leen loi bi nga xam gouvernement bi dugal na ko assemblée mhm. ñu ni ko de mu ni article dix-huit bi léegi maanaam amatoo droit wax sax lu jëm ci góor mhm. maanaam tey ji boo demoon euh, ñu ne ma moom moo ñu expliqué de c'est un grand patron. Mm-hmm. ci wàllu presse mu ni tey boo fekkoon sax ñaari góor jigéen. ñuy def naka su dul noonu ñu bett leen. Mm-hmm. da nga amoo droit boo koy relaté ci régional da nga naan démb bett nañu ñaari góor ñuy def naka su dul noonu waaye tuuru homosexuel moom. Mm-hmm. amatoo droit di ko. di ko di ko di ko di ko utiliser. te di ko dara parce da duñ la mën a dara parce que constitution bi ci boppam ñoom ñoo ko njëkk a violé ci ci boobu. Mm-hmm. donc pour wala ñu ngi wàññeeku loxo euh, suñu nguur yi. wañaar bu metti au niveau international ba gis nga ba ak seen euh, seenu tubaab boobu ba fa Macky Sall demee donte nag fii na nee na fii Obama duñu mës a nangu góor jigéen euh, pare guñu sax la ne duñ ko mës a nangu pare guñu pare guñu mu ngi mel ni nga ne sànq xam nga ba nga ma woowee pour sa dama la di pare guma mm-hmm. du loolaa la wax waaw mais instant bi pare nga ba def ba ma la mm-hmm. ba ma la ne <laughs> pare guma dag maa woowaat ni ma mhm. ndax léegi pare nga. Mhm. pare gu ma la wax Obama. pare gu ma nag mooy maa ngi ci yoon wi. Mhm. donc euh, mais bu ma la nee woon déedéet du ma ko def doo doo ma waat waaye ba ma la nee pare gu ma kon jàpp nga ni kon bu ci kanamee dinaa pare. donc loolu xam nga tontu yu doy waar yooyu. ba pare ñu bu dem ca itale ñu wax ñu laaj ko bu journal tubaab bi ni ko dégg naa homosexuel yéen est ce am na homosexuel seen dëkk mu ne am nañ homosexuel seen dëkk comme tout def lu leen neex mu ne ko li en tout cas libre nañu def lu leen neex. Mhm. loolu la ko tontu de. Mhm. boo la neex nga émission bi mën nga koo remonté waat itale Macky Sall sur itale. Mhm. léegi mu ne ko ndax du am problème du ñu am benn problème mu ne ko en tout cas du am benn du ñu benn problème ak gouvernement bi. xanaa bu ñu problème population bi la ñu problème waaye du ñu benn problème ak gouvernement bi. kon léegi kon mooy wane ni kon état bi ci boppam article trois cent vingt et ñoom gisatuñ ci benn benn problème maanaam ñoom tereetuñ ko sanctionné tuñ ko léegi nag kon ñun population ñoo war a taxaw temm parce que bu dul loolu suñu doom yëpp dañ leen def boo diggéen loolu moom li ci Macky Sall wax leer na mooy ci population bi la def feeg ñoo sote suñu bakkan mais bu dee nguur gi moom taxawatul taxawaay pour di leen di leen xeex wala di leen sanctionné donte suñu loi da koy da koy bañ mais am na tamit euh, mm, Adama dinañ ñëwaat tuuti si pétition bi ngeen lancé ci affaire ak marche bi mais am na tamit beneen phénomène bu bokkul ak euh, franc-maçonnerie di secte yi ni ñu ni ñu bare euh, actuellement fii ci Sénégal lan nga mën a wax ci ci secte yooyu surtout ñu bari ñoo xamante ne dañuy ñëw euh, di gëmloo jeunes yi mën nañu am xaalis bu gaaw boo xamante ni doo sonn di liggéey doo sonn ainsi de suite ban jàng nga am ci phénomène boobu actuellement waaw moo mooy kii rek suñu maal moom xam nga bu dee idéologie de base li nga xam ni bokk na ci dëkk instance de décision yi bëri seen Nations Unies ak yu mel noonu bu dee idéologie de base boobu lañ gëm mooy li ma la wax sànq mooy seen idéologie franc-maçon boobu nga xam ni il faut soutenir toutes les formes de liberté ñoom loolu lañ gëm léegi nag bu ko defee yow sa bopp ndey kumba bu la neexee bu subaa nga xëyee sa fekk fekk di def la neex parce que ñoom seen idéologie ak seen ay constitution da koo da koo da ko défendre mm-hmm. donc bu ko defee tey ji malheureusement nag ça se retourne contre boo demee fu mel ni France da ngay fekk fekk yi li ñu ne ci ay doomu kilifa ay doomu doomu euh, français foofu kenn xamul nu mu toll ah jël seen taxali leen ak seen i waajur des fois dootuñu xam mukk fu ñu nekk ah wala ñu jël seen compte bancaire yëpp vidé ko ñu ngi koy def dégâts yoo xam kenn xamul nu ba ñoom dañoo mujj malgré seen loi yooyu nga xam ne tey ñun moom la ñu appliqué bi waaye dañoo mujj defaat yeneen loi yu bees contre les sectes contre les dérives contre les sectes parce nag ñoom ni woon nañu amuñu droit def ko parce que contre les libertés waaye dégâts yi dafa mujj bëri ba France actuellement y a des lois contre les sectes boo bindee France loi dañ la woon loi yu bees ñun dañu war a euh, ku ñu suñu réew yaa war a aar suñu population yaa war a aar suñu ndaw. Mhm. mais doo boo jëlee kenn koo xam ne Samba booy bu jógee fee di réeral ndaw yi di dugal ci seen bopp ay ndox yow tey jii noo mën a demee Sénégal émergent nga wax mais mënoo jéggi Sénégal émergent te fekk am na koo xam ne moom mu ngi jéem a def xale yi ay dox pour mën leen a exploiter yaa ko war a njëkk a xeex parce que lii ci borom xam-xam bi doon wax plan Sénégal émergent balaa muy am. da ngay def plan Sénégal éduqué ak plan Sénégal éveillé ba pare. Mhm. waaye secte yooyu dañu compte li nga xam mooy éducation ak éveil maanaam yeewute doomu aadama parce que bu ñu yeewoo doo leen mën a nax. te finalité bi yëpp mooy mën leen a rek ak di leen nax des sax day doon exploitation boo xam ne sexuelle la des fois mu doon exploitation financière des fois doon exploitation boo xam ne pour pour di jëriñu seen ñax ñu lay liggéeyal suba ba ngoon nga koy ngay ngay dundee dundee. donc yooyu dafa war a am ay loi yu ko freiné yu ko tere loolu bu dul loolu du du du bi du dem waaw loolu c'est c'est day day freiné sax mhm. ñu leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Adama Mboup nekk cofondateur collectif ànd sàmm euh, jikko yi euh, tamit gis nañ fan yi euh, ci xeex bi ngeen di xeex wàllum homosexualité sànq yi ni nga koy junj ngeen lancé ab pro ab pétition plutôt est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci pétition bi ak projet bi ngeen xam ne nee nga dañ ko tëral pour daganal gën a lawal li nga xamante ni moom mooy ngóor jigéen ci àdduna bi rawatina fii nii ci ci Sénégal pétition bi lan moo tax ngeen lancé ko exactement waa pétition bi mooy euh, comme fi ñu nekk dañu ni boo waxee sax léegi ñu ni loi contre nature acte contre nature moom la constitution bi wax mhm. waaye góor jigéen ni sax léegi boo waxee ñu ne la acte contre nature góor ak góor di sëy c'est pas contre nature loolu c'est loolu dara nekk mhm. c'est naturel mhm. dinañu acte contre nature mooy ngay sëy ak bàyyi ma wala ngay sëy ak xar wala ñu mel noonu daal mhm. xam nga buñ demee ba yooyu ñu koy woyofal ñu ne nag kon nañ def loi boo xam ne day criminaliser définitivement homosexualité ndax tey boo waxee président Macky Sall ci kaw waxam moom discours am donte nag jëf yi wute na waaye ci kaw discours am nga dem ci xalif généro ñun la am nañ ci si duñ ci masaan nga dem ci population ñun la ànd nañ ci si duñ ci masaan kon tey nañ def définitivement benn loi bu ko boo xam ne bu ko criminalisé ñett noppalu nga xam ne crime lay doon bu leer nañ amul dëkk ci sàkkaat mhm. di yorante bon léegi nag ci kaw loolu ñu ne nag li gën mooy comme dëkk bi dafa am ni mu tëdd mooy on a des leaders d'opinion dañu am ay kilifa yoo xam ne luñ ci mënti wax dëkk bi moom koo waxal sénégalais boo waxal quatre-vingt-dix-neuf pour cent danaan la man ñii mhm. mooy sama kilifa ah ñu dem ci kilifa yooyu ñu signé ñoom ñëpp pétition dañu signé pétition wane ni dañoo bëgg ñu criminaliser le viol au Sénégal euh, ni ñu criminaliser viol ñu criminaliser ko homosexualité au Sénégal mhm. ah bu ko defee mu jeex buñ ko criminaliser ñun ñi dañuy noppal nga xam ne ambiguïté bi sax dootu ci am waaye tey jii booy seet bu ñu demee ba Euh, nangu ñu ne ñu ñu ngi woon jamono Abdoulaye Wade ci huit association homosexuelle yi ñu reconnaître au Sénégal. Mhm. ba ci yàgg ñu ni ci jamonoy Macky Sall ñëw na dix sept am na ñu ne sax dem na ba vingt ñu ba association homosexuelle yooyu ñu leen di reconnaître parce que dañoo criminalisé wul homosexualité au Sénégal waaye bu ko criminalisé woon benn association dootu fi mën a fi association yooyu xaalis bu bëri la wuti bitim réew ñëw fii di ko tasaare fii ci sunu xale yi pour def leen ay góor jigéen mais est-ce que tamit dangeen ngeen da ngeen lancé noonu pétition bi rek pour xumbal mais est que jàppoo leen ni euh, criminaliser homosexualité dina nekk lu jafe actuellement. mais pourquoi pourquoi muy jafe. Hmm. dañu toogee bëgg a criminaliser viol dañ ko criminaliser sans problème. Hmm. ñoom euh, li ñuy foofu la Europe ñu ngi criminaliser yoo xam ne tey jii polygamie boo ko amee ñaari jabar crime la foofu. film la dañ lay sanctionné acte la door la ci prison bi donc euh, tey jii ba ci muuraay bi voile ak yooyu barki dem ba Ndiaye ñu ngi foo bind seen i loi donc euh, lépp loo xam ne rek ñun dëppoowul ak suñu euh, ñoom ñu dëppoowul ak seen dëkk dëppoowul ak seen valeur donte nag am un milliard cinq cent million de personnes yoo xam ne loolu lañ jëm ci kaw suuf mais ñoom dañu tey compte ci ñu def ko loi criminalisé ko parce que ñoom dëppoowul ak seen valeur ñun kon pour pas ñuy am problème pour loo xam ne dëppoowul ak suñu valeur ñu war ko contre rawatina nag ñoom dégâts yi homosexualité bi def rek war na tax ñu criminaliser ko ndax gis nga sida mhm. ci boppam nee nañu ren jii rek am na un million de nouvelles infections euh, au virus du sida mhm. spécialiste médecin yëpp daje nañu Canada nee nañu fekk ñu wër jigéen ñu ngi koy promouvoir ba pare te ñu kenn ñenew koo xeex sida bi milliards de dollars yi ñu def yëpp du tax moo mën a reculer parce que jigéen ak góor ak jigéen bu ñu yi sey ak yooyu yëpp côté yooyu yëpp ci daaba reculé na ko waaye fi nga xam ne daal bis bu ne mu ngi avance mooy góor jigéen yi ak ñuy jaay seen bopp donc loo xam ne mu ngi def dégâts bu toll noonu di rey lu dul jeex yaay yu ren bi rek sept cent et quelques mille morts ci àddina bi mu dee loolu ngóor jigéen moo ko en grande partie moo koy indi loolu kon bu dul woon sax waxu diine wala dara dans le monde entier dañ ko war a criminaliser surtout nag am na expert yoo xam ne nee nañu góor jigéen nee nañu képp foo xam ne yaa ngi koy pratiquer. Mhm. ay ay recherche la yoo xam ne États-Unis ay chercheurs ñoo ko def nee nañu dina wàññi ci sa gudd fan entre huit ba vingt ans maanaam tey jii boo waroon dund par exemple soixante ans daanaka boo moytu quarante ans ngay dund faatu wala euh, wala cinq maximum cinquante deux ans yooyu. bu dee dañ ci teel a dugg par exemple mel ni fii teel a dugg ba muy am vingt ans ak ki ci teel a maanaam il a il a euh, kii kii ci nekk ci mbirum góor jigéen il a deux fois plus de chance yegg plus de soixante ans ci dundam que ki nga xam dafa am vingt ans rek dugg ci mbirum góor jigéen sans compter cancer de l'anus li nga de l'anus góor jigéen ñu bëree bëri tey dañ koy mujjee am mm-hmm. ñu ne gisee ba ci ba ci Polo Baba mooy seen star euh, sud africaine nga xam ni moo doon promouvoir góor jigéen waykat bu mag la woon. Mhm. temps yee cancer de lan moo ko rey. donc muy dégâts yoo xam ne bu dul woon sax mbirum diine mbirum valeur góor jigéen dañ ko war a criminaliser ci monde bi yëpp ndax dégâts yi muy def pour la santé publique moo tax ñu ni tey jii waxuma la sax dañuy yem dañuy yem ci position boo xam ni xalifa Sénégal yëpp ak dignitaires yi ba ci le roi du suy mhm. nga xam ne ñoom duñu euh, duñu duñu duñu musulman signé na y a des associations yu bëri yoo xam ne signé nañ ko de la société civile donc ñooñu ñëpp taxawee ni dañu bëgg tribunal de guerre bi génn sëñ Babacar Mbar sëñ Babacar Sy Mansour xalifu Ndiassane bi sëñ Mountakha ñooñu ñëpp signé nañu pétition ba ci xalifa Laayeen bi tamit ken ko def donc ñooñu ñëpp ñu taxawee ni dañu bëgg signé nañ pétition dañu bëgg tribunal de guerre bi génn kon état bi da koy war a porter premier compte mu criminaliser ko parce que ñun ñooy Sénégal te ñu Sénégal it ñoo ko moom keneen moomu ko kon nañ koy bañ ñun dañu ko war a defal bu dee ñu ci nekk ak ak kan yi lañ ci nekkal bu dee nag am yeneen lu dee ñeneen ñi ñoom lañu ci nekkal ah bu dee ñu xam ni kon ñu defal ñu suñu choix bu baax. ngeen di def marche 23 mai ñoo xam ni dina intérêt Sénégal lañ ci nekkal. donc moo waral tamit da yaa ngi dégg jeudi vingt trois mai journée bu mag boobu ñuy woote place de l'Obélisque kooku mhm. tamit loolu yëpp c'est dans le même sens pour mhm. Sénégal yëpp ngeen wane ni dañu bëgg ñu criminaliser ngeen di def bu ko defee nag duñ def pression yi parce que boo yow boo deful pression au niveau populaire nit ñi duñ deful pression mhm. maanaam yëga joobaay dem rek saa wax na ko ñoom ñoom ñu ngi def pression ci suñu nguur ñu ndaga dal góor jigéen donc nag tey jii ñun bu ñu toogee ni yàgg dinañ mujj ba daganal ci góor jigéen parce que soo waxuma dañ leen koy sant mais dañ leen di menacé di wañaale wañaale seen loxo waaye bu dee population dañ leen di menacé menace bu raw boobu junni yoon bu boobaa du yàgg ba ñu ba ba ñu séddee ci menace yi nga xam ni. ci hmm. ci ñu ngi koy def ci suñu nguur yi. léegi marche bi ñëpp ngeen ci woo ñëpp ñëpp ngeen woo ci marche boobu 23 mai. waaw. ban waxtu fu ngeen koy amalee. bon maanaam place de l'Obélisque jeudi vingt dimanche vingt trois mai à dix heures. Mhm. place de l'Obélisque dix heures ba quatorze heures. Mhm. loolu kon euh, du marche mais sit lay doon. rassemblement c'est-à-dire mhm. rassemblement. tooga toogaay ñaxtu waaye tamit département Sénégal yëpp ñu ngi koy préparé pour woote tamit ci seen département yi doxin euh, ñaxtu yu mel noonu le jeudi vingt trois mai euh, dimanche vingt trois mai à dix heures yëpp ci Sénégal dañuy dañuy génn pour wane ni. dañuy Sénégal yëpp ñoo taxaw ne ñun dañoo bëgg ñu criminaliser homosexuel bi. voilà eh, eh, yéen euh, waa collectif ànd sàmm jikko yi euh, seen i activité fan ngeen di jëlee ay koppar pour di ko financé exactement. ñun daal suñuy activité bénévolat la maanaam ñun ñëpp côté su ci nekk yow da nga gëm ni say valeur sa doom say sa jeunesse sa diine ñooñu ñëpp da nga leen a protéger donc ku ci yaa ñëw ak sa énergie bopp ak sa volontariat bopp boo yoree xaalis it nga def ko ci donc ñun noonu la ñu ak ñi nga xam ne aussi toujours gëm nañu combat bi ñooy jël seen dërëm dërëm it di ko ci di ko ci def donc mais nag quand même wàllu boobu des na bu baax parce que yi dañoo mën seetaan mm-hmm. vraiment da ngay xeex loo xam ne yaa ngi koy xeexal ñëpp te bu sottee bu sottee di nga di nga aar seen ndaw sauver sauver ndaw yëpp sauver seen njaboot waaye ñoom dañuy ne rek waaw góor waaw góor mais nag yëf yi di waaw góor a xam ne xeex bi ñëpp dañ cee war a ñëw dugal ci seen alal dugal ci seen seen ñaq waaye dugal ci aussi seen jëmm parce que lii ñuy xeex bis bu bu sottee ñett ñett yam jàmm waaye bis bu sottiwul dafa naa musiba bu mag dina am parce que lu ñu liggéey suba ba ngoon mooy yow ndey tumba mooy man mhm. muy keneen suba ba ngoon lu ñu liggéey ñu ngi koy fayale suñu doom yi ay jàng ñu ngi leen koy jox ñu lekk xanaa fayale ko ay dal maanaam ñun suñu suñu xaalis suñu activité suba ba ngoon pour suñu avenir doom la. Mhm. léegi nag bu nit jógee fële bëgg a yàq say doom maanaam investissement boobu nga ci def yëpp mu bëgg ko la ah war nga cee teg sa bakkan nga jàmmaarloog léegi dem nañ taayee ci ginnaaw gis nga coow bi fi amoon ci euh, bëgg a daganal ak tamit bëgg nit ñi nangu li nga xamante ni mooy ngóor jigéen wala transgenre wala ainsi de suite dem ba euh, bëgg dugal yenn programme yi euh, ci école yi rawatina ci tout tànk yi xale yi pour gëmloo leen ni buñ ne rek góor ak jigéen moo am mais genre daal di koy yaatal loolu lan nga ci xalaat est-ce que ñoom tegg nañ seen tànk sànq wala ba léegi ñu ngi fi nekkoon ci programme mu xale yi tout tànk yi. xam nga ñoom seen seen stratégie seen stratégie dafa am euh, lu mat juróomi stratégie yu bokkul maanaam ñoom bu ñëwee tey dañu naan mbir mi dèjà nañu wañaar nguur yi pour ñu commencé teg ay loi yu ko daganal mooy li ñu commencé gis fi Sénégal wax naa la ministère de du genre rek ay code de la presse yooyu yëpp. waaye kooku mooy institutionnalisation institutionnalisation bi moom ñu koy réussir ak gars yi ñu leen fi may lu bëree bëree bëri moo tax Sénégal war a jóg na ñu def cee jóg am massivement pour loolu loolu da léegi nag mais dañu ginnaaw institutionnalisation bi comme Sénégal même ñu ko defee ay loi aussi population bi dañoo contre ngóor jigéen seen diine dafa contre ngóor jigéen ñu ni kon nañu fexee ba ci ñu dugal ko ci éducation ba nga xam ni ndaw ya ci boppam ba ñu nekk gune lañ leen di gëmloo gëmloo ni lii dara nekkul maanaam gisoo Emmanuel Macron sax xam nga ba mu demee fii ca benn école. Mhm. dañ ko mhm. mun naa doon góor a góor mun naa doon jigéen a jigéen. donc c'est pas seulement rek papa ak maman loolu y a pas de problème xam nga yooyu lañ bëgg dugal ko ci éducation bi ba xale bi bu màggee pour mu nekk góor jigéen wala pour mu nangu góor jigéen jàppale leen du doon benn problème. Mhm. moo tax ñu bëggoon ci plan wu UNESCO boobu nga programme boobu yooyu la bëggoon a taxawal waaye nag enseignants yi tamit avant tout ay ñitu ngëm lañu ay diine lañ chrétien lañ wala musulman seen diine da koy bañ donc ñooñu ñoo taxaw ni lañ loolu duñ ko nangu donc ñu ngi fexe aussi seen stratégie bokk na di ko jéem a jaarale ci éducation njàngu xale yi mhm. pour bu ñu màggee ñu mën a nangu yooyu waaye tamit bokk na ci euh, ba ci euh, Los Angeles sax am na ci livre yoo xam ni sama faru papa la ko tundee wala kii wéttali sama sama yaay ci néeg ba so maanaam ci jigéen donc xam nga yu mel noonu buñ demee ñoom ba nangu ko dañu bëgg manuel yu noonu xale yi di ci jàng tamit ba xam ne ah kon lii dara nekk mhm. buñ jógee ci loolu tamit ñu bëgg a ba beneen stratégie ñu jaare ci artistes yi parce que bëri na dëkk buñ ko réussir dañuy jaar ci artistes yu siiw ñu fexe ñuy jàppale mbirum góor jigéen wala ñu dugal leen ci ñu doon ay góor jigéen sax ñu promouvoir waaye tamit bokk na ci seen stratégie jaar ci ONG yi pour ñu financé ak di dooleel képp koo xam ne yaa ngi jàppale góor jigéen dañu gis association bu fi am doole am ay maillage un peu ci ci Sénégal moo xam association jigéen yi la wala yu góor wala yu jeunes yi ñu fexe di leen financé mais dañ leen naan quand même da ngeen ñuy nangu mbirum góor jigéen te di ko jàppale donc yooyu yëpp tamit bokk na ci seen stratégie ñu tëral pour mën a tasaare nguur gi jëm ci ci parce que àddina bi tamit noonu lañ def. waaw dem nañ ba dem nañ ba gis ci ci ci football bi sax. bépp association boo xam ne nga bu ñu criminalisé ngóor jigéen. bépp mm-hmm. association bu fi indi ay fonds. ñu jàppale nga naan léegi boo leen jàppalee ngóor jigéen dinaa la jàppale association boobu même jour bi dañ ko war a expliquer parce que li muy jàppale crime la au Sénégal. waaye su mu ne nii par exemple yooyu yëpp mën nañ ko def gis nañ ci ay association yoo xam ne Nations Unies leen gëm mais su ma la ñu ngi jéem ñu parce que mhm. dem nañ ba gis ni sax euh, ci football bi ñëpp koy seetaan ci àdduna bi euh, léegi drapeau homosexuel yi euh, fa la ñoo ko daal di sponsorisé. waaw parce que nga mbirum football bi. Mhm. mbirum football football c'est le milieu le plus le plus dans le monde. Mhm. milieu bi gën a bañ mbirum góor jigéen. gën koo dàq mooy milieu football milieu milieu la preuve gis li nga li nga mën a lim ci footballeur ci monde bi ëpp na cent ay centaine de milliers footballeur yu siiw tamit yi nga mën a lim ëpp na presque mille waaye amu ci kenn koo xam ni presque taxaw na revendiquer ni góor jigéen laa mhm. parce que waxuma la ñoom ci seen bopp waaye stade yi ci boppam boo xasee ba ni góor jigéen laa dootoo am jàmm dañ lay yuuxoo sa début match ba fin boo luppee bal sax wala nga yàq match bi ñu ni parce que góor jigéen la bu leen ko bàyyee ci mu joué. Mhm. dégg nga donc ñoom ku ciy def yooyu sax dañ koy nëbb ni ndëmb donc ba année bii moo doon milieu bi nga xam ne góor jigéen kenn ñëwee ko faa fësal parce que boo ko fësalee am problème ñu ne nag léegi ni ñuy def. Mhm. mooy dañuy boole ñëpp maasaale leen pour nga xam ne dañuy jàpp ne góor jigéen dafa war a am àqam nañu fexe ba brassaaru capitaine yi sax brassaar yi capitaine yëpp di takk na noon couleur góor jigéen. bu ko defee nit dina takk brassard bi football ñu naan mais du góor jigéen ak ne dafay jàppale góor jigéen waaye du góor jigéen bu ko defee nag après nag si la ñuy dem ba footballeur yi ñeme taxaw ni man góor jigéen laa yooyu yëpp dañ leen di wutal mhm. ay porox ndol ak ay yoon waaye nag yooyu yëpp daal liñ naan ñoom lañuy def ñoom seen droit la ñuy xeex seen droit yu bon yooyu la ñuy xeex ñoom nag lu mu leen jaral di waaj a doon wax rapport ba ni na la mu jaral borom euh, addu kalpe ba bu ko jàllalee borom kalpe bi kalpe bi dem donc ñoom coono buñ ci daj rek ñun war nañ daj bu ko parce que ñoom jaral na leen lu nekk pour ñu def sunu ndaw yu góor jigéen duñ ci def seen i moyen di ci def seen alal di ci def seen ay politique gouvernementale di ci def seen lobby ak seen temps ñun nag dañu jaralu ko suñ ko jaralee ñoom dinañ dellu ginnaaw par force parce que am na dëkk yoo xam ne tey góor jigéen am euh, dañ ko fay xeex ku mel ni Russie Vladimir Poutine dañ ko fay xeex dafa am ay loi yu criminalisé góor jigéen mm-hmm. bëri na suñu yoo xam ne dañ ko fay xeex te gis nañ ni jigéen su mu am yëpp deful lu dul di leen tardeel parce loo xam ne yow doom dootul judd góor ak góor di sëy jigéen ak jigéen di sëy tey jii ku la ëpp ay xale ëpp la ay ndaw moo la ëpp moo lay gën a développé si li tax mu doon numéro un tey jii c'est parce que seen population da cee jeune lu bëri léegi nag képp ku def population politique boo xam ne moom day wàññi jur xale yi wàññi seen euh, seen compétence yi loolu loolu musiba la pour avenir yu dëkk. donc euh, day mujj sax ñoom non seulement ñu may glorifier waaye ñu mujj tey di seet ñu ñu demee bitim réew pour adopté parce que yow saa nga doon góor jigéen xam nga doo am doom kon tey assuré ni tey waratoo am doom waaye dañuy dem ba metti ci ñoom. ñu mujj bëgg ñëw fii naan nañu yombal adoption. Mhm. ak procréation médicalement assistée boobu nga dégg ni temps yi moom dañuy bëgg def del dalal bëri na ci programme yu mel noonu yoo xam ni góor jigéen dañ koy jàppale bu baax parce que dañ leen fay créer ay doom di leen ko jaay góor jigéen yi nga xam mënuñoo bëgguñoo si kare da ngay def mhm. jigéen boo xam ni mhm. bëggul am jëkkër moom jigéen la ne bëgg a nekkal te boobaa day ñëw fay mhm. bu ñëwee fay dañ ko fiy defal defal kii mu yenu doomam yóbbu doom joo xam doom papa mais France ci boppam PMA boobu récréation médicalement assistée ñu ngi koy xeex fi mu ne def nañ ko boo xam ne temps yee plus deux millions de personnes ni dañ koy xeex parce que dañu gis ni yaa vingt ans bañ ko fa bañ ko fa mayee ñi nga xam ni ñoo ci judd woon tey ñu ngi màgg ba nga gis seen bàpp mu leen boo ne ana sa bàpp ñun la ana sa bàpp loolu xam nga musiba la ci xale mm-hmm. parce que dañ ñu la créé woon ci ay système boo xam ne yow doo doo xamoo sa papa sa yaay sax xamul sa papa dañ ko jox rek euh, maniw bi mu mu mu intégré foog nga daal di jub mm-hmm. loolu bu yàggee day doon day soñ lool lool xale bi ci juddoo def ko koo xam ni àddinaam yëpp day déséquilibré ndax day am problème di xalaat. Mhm. léegi nag ñooñu tey ñoo taxaw fenn France pour paiement boobu nañ ko nañ ko criminaliser dootuñu ko nangu ba état bi mu ngi mu ngi mu ngi leen di suuf parce que état population bi yëpp a ci jóg. c'est-à-dire ñun ñoom dañoo dem ci musiba bay dellu ñun ñu nekk fekk musiba boobu ñun bëgg cee dem nit tey la nga fekk mu dem ci ba jigu ko muy dellu te waroo dem. dernière question ñu laaj la si euh, juste quelques ñaari minutes temps bi jeex na mm-hmm. euh, si ñaari korité yeeg ñetti korité yi nga xamante ni mu ngi continuer di am fii ci ci Sénégal yow euh, lan nga ci xalaat lu ciy solution. man daal li ci solution mooy. Mm-hmm. xam nga bu njëkk ba fi pouvoir colonial nekkee tubaab bi sax loolu amul woon. da nga daan gis ñëpp ñoo daan woorandoo ñoo daan woorandoo li waraloon loolu mooy tubaab bi gis nga Zender foofu ñuy wax ci Niger Zender mooy point bi gën a ci golfe ci ci àddina bi ci globe bi pour mën a séntu weer ñoom colon bi nguur gi loolu lañ daan def ci jamono tubaab dañuy woo Zender Niger ñu ni leen gis nañ bu ñu nee gis nañu ci saa si ñu woo kër bii nii yëpp ñu ne leen weer bi feeñ na ca Zender ñu daal di woo buñ ne gisuñu ko ñu daal di ñu continuer donc loolu la affaire bi daan doxe mooy dañu daan nangu fu weer feeñ rek ñëpp woor fu weer feeñ ñëpp wori waaye nag léegi bu demee ba nga xam ni nag ku ci nekk léegi sa approche personnelle nga am man jàpp naa ni aussi gis nga ñett def lu la gën a dal ci ko diine am na ku ko diine maye loo xam ni yow gis nga ni yow lii moo gën a dal sa xel nga def ko na waaye nag li gënoon dee mooy ci jullit gën pour jullit gis weer te muy jullit bu wér ñu ñu kii ne ko mag ña daan defee bu ko defee dañuy mën a continuer di woorandoo waaye bu dee léegi su ci nekk boo nee weer bi feeñ na sax nga ni man aadama mbuub laay dégg man bu waxul man du ma du ma kii alors que yow kii la ko wax jullit la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettali nañ ñu koo xam ni nit ñëw na ni feeñ na fële mu ne ko ndax gëm nga ashadu an laa ilaaha illallaah ashadu anna muhammadan rasulullah mu ne waaw mu ne ak na nañu tënk ci mu wax nañ gëm ñun ñëpp li nga xam ne wax na ko te tënk hmm. donc nit bu fekkee mais prise de confiance xaj na entre jullit yi am na waaye tamit ku ci nekk bëgg daal ak ci jëm sa boor moom daal yàlla nañ ci yàlla mu ko waaye li ma ta ñaan daal mooy yàlla na yàlla nangul ñëpp amiin ñu wari tey ñu wari subaak yëpp daal nañ ñaan yàlla yàlla nañu baal ñun ñëpp nangul ñu ba pare nag yàlla na yàlla boole xol yi ba loolu daal jóge fi incha allah. jërëjëf Adama Mboup ñu bàyyi la nga tàggatoo ak yi. waaw ndey Kumba ñu ngi lay ñu bu baax yow di la ñaanal ci barke weeru koor bi ñu génn. Mhm. waaye di ko ñaanal seen organe bi nga xam ne ñoo ñuy may mu mën a eh, leeral yu mel nii. organe bu mel noonu kon ñëpp war nañ ko ñaanal yàlla na ngeen fi yàgg te wér ndax kon askan yi ngeen fi nekkal ak avenir ak ay intérêt bi mhm. lépp luy loo xam ne ñëpp war na ko mën a wax ci wàllu fi ngeen may ko mu mu exposé ko ko bu ko defee nag auditeurs yi tamit dañuy dégg ñooy xam ñooy atte loolu tamit loolu bokk na ci conscience professionnel bu baax a baax ci wàllu journalisme mhm. gis nañ ko ci yéen kon ñu leen ñaanal dée daal yàlla na ngeen fi yàgg sa wér yàlla na di woo ñëpp ci ci journée dimanche 23 mai. 23 mai bi boobu euh, ñun bu kenn ni euh, fu gars yi toll. waaw bu ko kenn jiitu kenn ndax li xeex moom. lu ñu gën a rek jëf yi gën waaye ku ci toog di seetaan lu échec yaa jëf jërëjëf Adama Mboup ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité nga nekk euh, confondateur ci collectif ànd euh, sàmm jikko yi ñuy xeex lépp lu soxa rek valeur euh, file ci Sénégal kon ñu koy remercier bu baax Adama Mboup di remercier Mamadou Diawa Diallo bi nekkoon ci technique bi émission bi mën ngeen ko dégluwaat ci suñu site internet rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10 heures jàpp 11 ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf